waa li ci mën a jàpp mooy tey ñu ngi sant bu baax suñu borom eh, bi ñu indi fii tey comme at bu nekk ni ñu koy defee man ak sama mag suma xarit de président Idrissa Seck ak l'honorable député ci Fall ak le coordonnateur départemental Amar Kourouma ñu représenté fi tey Grande Alliance te xam nga ne Grande Alliance dafa nekk ci kujje gi organisation bi nga xam ne nii ñi gën a mag ci ku jegi ci lañ bokk kon nag bu li xawee màggal at bu nekk dañuy ñëw taxaw fii gis mu Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér eh, yeesalaat suñu ak taalibe yeesalaat suñu kóllëre ba pare gën a firndeel bëgg-bëgg bi xam ne nii ñun ñëpp ñoo ko bokk ci senegal pour ñaan sëriñ Touba ñaan kilifa diine yi fi nekk yëpp. lii nga xam ne nii moom la tey réew mi jànkanteel adduna bi jànkonteeg moom te mu lëmbaaje ko muy coronavirus sëñ Tuubaa jële ko fi te mën na ko loolu lañ doon ñaan tey ji sëñ bi may ñu ko te gëm naa ne bu neexee yàlla dina fi jóge Sénégal mën a delluwaat ci jàmmam ñu ànd ñu ñëpp bokk ndey bokk bàyyi liggéey suñu réew. waaw ñun kenn gëj ñu joo dégg xam nga euh, politique. Euh, waxoon naa léegi ne dama sañoon dinaa dugg Touba ba génn dama wax waxu politique waaye xam nga journaliste yi yéen moytu leen dafa xaw a jafe ndaxte ba ngeen ma laajee tontuuma leen ngeen ne daa daw question ba te man aw ma question bu may daw parce que sama yëngu-yëngu yëpp ak ñi ñu àndal ñun ñëpp ci grande alliance yëngu-yëngu pour Sénégal yënguwuñu pour am lu lekk wala pour am lu naan wala pour am ay avantage wala pour am ay post parce que ñun ñun jaar nañ ci loolu yëpp ba pare xam nañ loolu aussi. kon nag bu ñuy sonn tey Sénégal rek a tax ñuy sonn ndax Sénégal mooy suñu lépp Sénégal moo ñu jaral lépp dafa fekk ne dañoo jóge ci élection yu métti élection yu métti yooyu bañ ci jógee ñu ne dañuy woote dialogue ñu tànn ne ah kilifa yi kat ne ñu nañu waxtaan parce que waxtaan ci la jàmm xaj waxtaan boobu nag lañ doon def waaye waxtaan ñu rek jonkan di xaar solution jamono politique. dafa laaj jamono waxtaan ak jamono wax ak jamono jëf ak jamono nekk ci terrain bi loolu yëpp nag dafa am lu mu laaj jamono yi ñu génn la ma laajoon mooy mbiru inondation ñaata yoon lañ ci wax mbirum pétrole gaz ñaata yoon lañ ci wax xam nga nit ñi dañuy fàtte boo xoolee man ko wattu Sénégal li ñuy wax ni yëpp waxoon nañ ko te ñoo ko giite woon kon nag kenn mënul déterminer suñu calendrier naka la ñuy waxee ak fan la ñuy waxee ak naka lañ ko war a waxee li am solo mooy dañoo bëgg Sénégal di liggéeyal Sénégal ci fulla ak fayda ak jom ju mat sëkk kon nag loolu moo am solo la ci des mooy noppiwuñu di xaar kenn jonkoon nañu di xaar kenn li ñuy def mooy ku ci nekk njun comme ni ñu ko defee tey ci Touba bu jotee dañ koy def leneen aussi bu jotee ñu def ko. même ba xam nga loolu affaire gouvernement duma ma ci wax dama bala maa wax ci dara dañ may laaj ci dara wala ka ma war a wax ci dara wax ma ci dara ma doog a tontu ci dara waaye nag kenn waxaguma ci dara dégguma ci dara mënu ma cee tontu bu yàlla defee ki war a wax waxu gouvernement wax ma waxu gouvernement du boobaa daañu ko mën a tontu waaye fi nekk ni man damay politique te du ma politique ci nasaxaay ci sànni samay wax ci mbedd mi kilifa la Sénégal yi dañ may déglu. lu ma war a lu nekk rek dafa ma war a leer li ngay may laaj nag dara leer gu ma ci bés bu ci dara leeree bu neexee yàlla dinaa jàkkaarloo ak sénégalais wax leen ne wax nañ ma lii kat waxtaan ak sama parti ak ñi ma ànd ñu xool loolu ñu ñu wax lakk lañ ci war a mën a andi ay solution waaye li am solo mooy fii nga xam ne ni mooy bërëbëb sëñ Touba ñu Touba bi nga xam ne ni mën na ko ah mu dimbali ñu ci lii nga xam ne moo lëmbaaji réew mi mu jëlee ko fi muy corona bi te gëm naa ne ah bu ñu jógee ci màggal gi sëñ dina ko fi jëlee ndaxte sëñ Touba moo ñu aar aar Sénégal aar aussi suñu ay bëgg-bëgg kon nag yàlla yàlla motali yéen